dem nañ ba medina gunas dekk nitu yalla ku mag, cerno muhammad said ba tanal ko ci daaray tayam yi ben dara bu ñuy tuddé darul ihsan tanu fa ben ndongo bu ñuy tuddé omar ahmad abu Tal, mu war ñoo jangal ayat yi ñi fasiyene firi bismillah sëñ ahmad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 في صدرك حرج منه حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا وهم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون sadaqallaahu l-aziim maasha allah jërëjëf Omar Ahmad Abu Taal ci ayaat yu tedd yi nga jàngal ñu ak njàng mu tedd mu rafet mi ngi ko jàngee ci riwaayatul warsh te mu nekk lu tumurank ci suñ jamono ji te suñ maam yeeg suñu bàyyeeg suñ mag ñu baax ñi fonkoon ko lool yal na yàlla wàccee barkeeb alquran ci sa kaw yal na ko yàlla wàccee ci say waajur yal na ko yàlla wàccee ci sëriñ daara bi nga xam ne moo sonnee aayaat yu tedd yi ba def ko ci sa dënn bi ayat yim ñu doon jàngal mooy boppu suuratul aaraaf mooy saar wi nga xam ne moo xaajale xaaj kaw bi mu mel ni ci xaaj kaw bi yàlla dimbali nañu gannaaw bi ñu firee kaamil bi bi mu jeex tàmbaliwaat nañ ko ba xaajal xaaj kaw bi yàlla nañu yàlla dimbali ñu ñu jeexal ko ñépp fekkee ko ànd ak wér ànd ak jàmm ànd ak sutura lépp yàlla na ko yàlla nangu lu ñu ci juum mbaa ñu yàq ko yàlla nañu ko yàlla jéggal mu tàmbalee ci boppam alif laam miim saab benn kot la ci code yi nga xam ne yàlla da ko codé téeréem bi nga xam ne daanaka kenn tenewut ci kenn nekk ci boppi saar saar yim nekk seen bopp ya ñaar fukki saar la ak juróom-ñeent mooy vingt-neuf ngay fekk baat yu mel nii nekk seen boppi saar ya téeméeri saar ak fukk ñeent yépp ñaar fukki saar ak juróom-ñeent moo ci am lu mel nii léeg-léeg danga nga ci fekk code boo xam ne benn xaraf rekk lay doon lu mel ni nuun ak xaaf léeg-léeg nga fekk ci code boo xam ne ñaari xaraf lay doon lu mel ni xaamiim léeg-léeg nga fekk ci code boo xam ne ñetti xaraf lay doon lu mel ni alif laam raa wala alif laam miim léeg-léeg nga fekk ci code boo xam ne juróomi xaraf lay doon lu mel ni xaamiim siin qaaf wala kaaf haa yaa ayun saat léegi-léegi nga fekk ci code boo xam ne ñeenti xaraf lay doon borom ñeenti xaraf yooyu nag bii ñu tiim di alif laam saat benn la ca waaye xaraf yi yàlla côté téeréem bi ci ñaar fukki saar yeeg juróom-ñeent mooy genn wàll xarafu hijji yi leetar ci arabiya 28 lettres mo am yalla tan ci fukki haraf ak ñent côté ko téeréem bi haraf yooyu dañ ci fekk alif dañ ci fekk lam dañ ci fekk bi dañ ci fekk saat dañ ci fekk ra dañ ci fekk timit haun dañ ci fekk sin dang ca fekk qaf dang ca fekk ha ya, ain, non lañ koy topé dal ak ta bu fukki xaraf ya ñeent mat fukki xaraf ak ñeent rek la laaj nañ ko sayduna abubakar lu muy tekki mu ne téré bo gis amna secret xaraf yi yalla côté bi moy secret téré bi li kulli cheyin sirrun wa sirrullahi fi lquran xurufu tahajji sayduna aliyu ñu laaj ko ko mu ne loo gis lu yàlla bind ne am na lu sell sell ak téere bi nag mooy xaraf yi yàlla kote ko léeg-léeg yàlla xamal ko doomu adama dafa mu may mu am loo xam ne daf ko dénk mu def ci ay kot ku mu ko waxul xamu ko kenn ku ne ci yéen ngi nii téléphone am bi moo xam code ba buñ ko sàccee bu ko yóbboo rek mu feeñ yàlla côté de téeréem bii noo ci sàcc rek buñ génnee code bi mu feeñ am na ki ñoo xam ne seen walis yi ñu gën a fonk am na code boo xam ne moom lañ koy tëjee boo sàccee walis yi mënoo fexe ba tijji ko alquran tamit noonu la mel te li ci gën a yéeme ñaar fukki xaraf yi juróom ñaar fukki maanaam saar ak juróom-ñeent code bu ci yàlla tudd rek yéemoog téere bi la cay teg yang ni nii ne alif lam mim lo ca tek zalikal kitab ba nga ne qaf wal majid ba nga ne nun wal qalami wa ma yasturun ba nga ne alif lam ra kitabun anzalnahu ba nga ne ha mim tanzilul kitab mbooleem ñaar fukki saari ak juroom ñent yépp bu code bay daanu rek bu code bay jeex rek téere yàlla baa cay tegu muy wane lott loo gin lott loo mbindee fii ci ku njëkk ak ku mujj ci nit ak ci jinne lu seen xel ya rëy rëy rëy munuñ koo wax munuñ koo indi moo tax arab yi lii xamuñ ko woon code yi xamuñ ko woon boo leen waxoon tey lii ne leen nga nit ñi tiim alif laam miim wala alif laam miin saat duñ ko mën a duñ ko mën a sax jàng bu ko yonent bi jàngale wu rek duñ ko mën a jàng ku ko man rek yaa ngi ko jëlee ci làmmiñu Seydina Muhammad waaye boo fa nekkoon tey mën nga faa nekk doo xam lim na mu nga nekk fa naan alif wala nga ne alif laam miim saat ak no doo xam noo koy waxee daal moom rek moo ñu mën a wax ni ñu koy waxee kon loolu code la bu bàyyi ko ci yàlla direct ñëw ci yonent bi yonent bi nag moo ko maanaam décoté ci jàng mi waaye terewul nag maanaama borom xam-xam yi wutee ci lu muy firi boo demee Ibnu Abbas dafay wax ne tur wu ci nekk xaraf wu ci nekk dafa am turu yàlla wu muy junji alif gi mooy junji ahadun laam gi mooy junji latif miim gi mooy junji mooy junji majid mën naa junji tamit malik saad gi mooy junji sabuur ak saadiq yooyu ci turam ya la waaye am na beneen boo jëlee saar wii alif gi mën nañ caa déggee mooy junji aadama dana jàngale xisaab aadama ci téere bi léegi rek bu jeexee tuuti rek aadama la cay teg moom la njëkk a moom la njëkk a tudd ci yonantu yi jàngale xisaam moo tax alif gi aadama lay junji ba tey laam gi mu ngi junji luut dana jàngale yonantu yàlla luut ci lay duggee ci mbiram góor jigéen ñi li ci li ci war miim gi mi ngi ci mi ngi junj yonantu yàlla Muusa dana ko jàngale ci saar wi saat gi mi ngi junji saalixu dana jàngale mbiram saalixu tamit yonentu yàlla saalixu ci ci ci ci maanaam saar wi saar wi yëpp boo calculer aaya ya cent six la ñaar téeméeri aaya ak juróom benn la boo calculer baatam yëpp trois mille trois cent vingt cinq la ñetti junne ak ñetti téeméer ñaar fukk ak juróom boo calculer xarafam yëpp dalay jox quatorze mille mooy fukki junne xaraf ak ñeent junne la saar wi làmboo lii la saar wi làmboo ci ay aayaat làmboo ko ci ay kalimaat làmboo ko timit ci ay xuruuf ñii ne alif miim saat ngëñ la ñii ne yàlla moo daataarloo ak xamam lu ci mën a am daal moom lañuy ñuy dugg si nii moo tax mu ne bisimillahi sos na ma sama wax ci tudd turu buur bi arrahmaani buur bay xewalaa koon bépp mbindéef ci àdduna bi arrahimi buur bay xéewal ku ko soob ci àllaaxira alif saab yàlla xam lim namm ci alif laam saab waaye lu ci mën a xam kitaabun moom de téere la unsila wàcceef na ko ilayka jëm ci yow sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam wàccee na ko kon nag falaa yàkkun bu mu nekk mukk fii sadrika ci sa dënn bi xarajun tiis falaa yàkkun bu mu nekk mukk fii sadrika ci dënn sa xeet wi xarajun sikk minhu ci wàcceeg téere bi wàccee na ko li tum ngir nanga waare bi ci téere bi wacce na ko wa zikra def na ko muy jëmmug waar lil mu'minin ñeel way gëm ñi li lay xamal ne fala yakun fi sadrika yonentu bi la ko adressé mais xeet wé ko mom lam cey tek mo la koy xamal waxut ko ittabi mais dafa ne ittabiu top len yéen xeetu yonentu bi ndax yonentu du sik mukk ci téré bi yonentu bi timit diina deñum du du tis mukk ci téré bi motax tax yonentu la ko adressé rek waye xeet wé ko mom mi ngi mel ni bii mu xooxee yonantu bi ne ko yaa ayuhan nabiyu ida talaqtumu nisaa waaye waxu ne ida talaqta nisaa kon foofu yonantu la xoo waaye xeet wi ñoo moom la muy wax moo tax mu ne ittabioo topp leen yéen xeet wi maa téere ba nga xam ne unsila wàcceef na ko ilaykum jëm ci yéen min rabbikum bàyyi ko seen borom wala tattabioo bu leen jàpp moom nga koy firee min doonihi ku dul yàlla awliya ay xarit bu leen jàpp kenn ak yàlla baxi fi yàlla xalilan aji néew la maa na seen ak waaru wa kam min xariyatin bari nañu ñooñ dëkk maanaam majaas la ëxlëg naa xalag nañ leen fa jaaha dikkal na leen ba sunaa suñ mbugal bayaatan ci guddi aw hum wala ñoom sax ba mbugay mal ñëw na way nelaw lañ nelawi bëccëg muy sest kon gis nga ko yàllaa ngoog ak téeréem bi mu ne wàcce na ko ci ñun buñ ci sikk ndax laa ray ba fii téere bi amul sikk ku ci sikk rek ci yow lañu war a sikk waaye duñ sikk ci téere bi ndax jant bi bu ne dàng ku weddi ak fenkam dañuy wax ne jant bi moom amul problème mais yow sa bët yi am problème ndox mi bu neexee mel nam war a mel nga naan ko naan ndox mi dafa saf xorom dañuy wax ne sa gémmañ gee am problème mais ndox mi moom amul problème alquran tamit noonu la mel moo tax kon mu ne bu leen ki sikk jël leen ko ngeen jàpp ko te di ko jëfandikoo jël leen yàlla jàpp ko muy seen xarit di seen borom ngeen bàyyi fi ñu weddi yàlla ñépp bu ngeen ko defut danaa leen mbugal comme ni ma mbugalee woon dëkk ya weddi woon seen yonantu ya moo tax mu ne wa kam min qaryatin ahlaknaha nit yonantu yàlla noox ya weddi woon nañ seen dëkk weddi woon nañ seen yonentu ba alag naa leen niti aad ña noona niti saalixu ya noona niti aad ña ci laa yónni woon huut ñu weddi ko ma alag leen niti yonentu yàlla luut ya góor jigéen ñi alagoon naa leen ba ci niti yonentu yàlla muusaa ya kon bu ngeen continuer di weddi sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam fi ma jaaroon nag ñooña rek laay jaar ak yéen mbugalam yàlla nag ñaareel cuy wàcc ci aw xeet waxtu wañ ko yaakaareewul rek lay ñëw mooy waxtu guddi ak waxtu bëccëg moo tax ma tudd bayaatan aw hum qaa'iluuna qaa'il mu ngi bàyyeekoo ci xa maanaam la mooy te mooy tekki sest mooy nelaw yu bëccëg xam nga tey nit ki bu demoon liggéey ba wàcc reer sangu jàpp ne dafa war a dallu pour coonoom wàcc bu mbugal wàccee rek day gën a métti mo gëna tiis téméré junne yoon bu ko fekkoon ca magasin ya wala mu fekk ko ca marché ba mbaa mu fekkoon ko ca tool ya ki wàcc bëccëg timit laaj soxna si mu indi añ bi mu laaj ataaya ñi jox ko mu laaj njar mi naan ne taxawal ma dallu tuuti mbugal ma wàcc ci kawam foofa moo gën a tiis bu wàccoon ci waneen waxtu moo tax mbugali yépp ci xeet yi bu ñuy wàcc ñaari waxtu wi rek lay wàcc guddi mbaa bëccëg moo tax mu ne fa jaaha ba'suna bayaatan aw hum qaa'iluuna kon loolu la ci nam mooy ñaari waxtu yooyu bana loola mbugal ma nag ñaareel buy wàcc ba tiim leen nañuy torox la yàlla di wax ba mbugal may wàcc mu ne fa maa kaana nekkut daxawaahum seen ak toroxlu mooy xabari kaana ji da koo jiital is jaahum ba mu leen dikkalee ba sunaa suñu mbugal illaa an xaaloolu dul ñuy wax ne innaa naka ñun daal kun naan nekk nañ mi ne di way tooñ rek tooñ daal moo ñu yóbboo lii ña ngay saalik mais du jariñati yarab yàlla bi bu xasee dal nga naan ko maa tooñ foofa moom dootul amati benn njariñ dangaa waroon a fexe ba boo tooñ ku la ëpp doole te bu lay mbugal du la yërëm te bu lay mbugal amul kenn ku mën a ñaan intervention ba mu bàyyi la muy def dangaa war a moytandiku tooñ ko boo bëggee am jàmm yàlla ne fala nas allan na danañu laaj lazina ña nga xam ne ursila yónneef na ilayhim jëm ci ñoom mooy ndaw mooy ñañ yónni ña mooy ña moo maanaam mooy maanaam xeet wa ñëw moom la ilayhim waaye wala nas alan na danañu laaj tamit mursalina ñun yónni ña kon ñaar laaj laaj danaa laaj ñañ yónni ne leen ndax yéen jotal ngeen sama message bi ci seen xeet bi ñu ne waaw waaw ñu ne waaw yéen xeet wi ndax message bi yegsi na ci yéen ñu ne waaw waaw kon ñaar yëpp laay laaj danaa laaj samay ndaw ndax jotal nañ danaa laaj ñi ma yónni seen ndaw yi tamit ndax message bi yegsi na su boobaa nag ñoom ñaar ñëpp buñ saxalee sama yar bi door a mën a dawul ci kaw ndax man du ma mbugal ku ma digalut mbugal du jiitu ndigal dama lay digal nga weddi sama mbugal door a mën a ñëw ci moom waaye xoolal fii dafa ne fa la nasalana alladina ursila ilayhim dana am beneen aay boo xam ne wala yusalu an dunubihimul mujrimuuna am na fu mu ko wax mu ne kàccoor yi kenn du leen laaj foofa sax dara day am étape yi àllaaxira pari étape la rek day am foo xam ne dañ leen laaj am na foo xam ne dafay tàng ba kenn du la laaj dara moo tax mu wax fii ne danañ leen laaj am feneen foo xam ne mu ne duñ leen laaj dara fa la naqusanna danañu nettalil alayhim ci ñoom bi ilmin ci xam wa maa kunnaa nekkuñu ñun yàlla ñii di laaj ibbi na di way fàddu ci suñ xam-xam ak ci suñ jëmm dama ko def ngir saxal maandu rek waaye li may laaj maa ko gën a xam ñi ma koy laaj di sama yonantu ne ñoom jotal nañ li may laaj maa ko gën a xam xeet wa ne ñoom tamit jot nañ message bi mais damay laaj rek ngir saxal maandu léeg-léeg nga laaj fekk li ngay laaj ki nga koy laaj xam na ko yow mi koy laaj xam nga ko mais dangaa bëgg a saxal maandu loolu rek la ci yàlla jublu ndax li ngeen di def mosu leen maa fàddu ci dara mënu leen a def lu ma lu ma lu ma gisul mënu leen a def foo xamante man nekkuma fa ndax maa yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabiuhum wala xamsatin illaa huwa sadisuhum kooka mën ngaa def lu lu ko lu ko fàddu kon bu la booleeg ay ndaw ñuy bind boo muy kiraaman kaatibiina boole laag ay yonantu ñu indi la téere yi di ko jàngat ci sa kanam boole ko di ko pratiquer waaye waaye boo ëllëgee bu lay laaj dafa dafa bëgg a saxal maandu rek waaye yëpp moom xam na ko bu ko neexoon yëpp dara du ci am léegi nag laaj am na saxal am na yonantu ya saxal nañ ne jotal nañ message ba ña ñu yónni ci ñoom saxal nañ ne jot nañ message ba waaye nag ñoo ko jëfee hut léegi nag la fa des nag mooy teer yi ca kanam yàlla mi xam lépp waaye ngir saxal mandu mu ne tamit damay peese seen jëf yi loolu la mënoon na caa ñàkk xam na lépp ki war a dem safara xam ko ki war a dem aljana xam ko même bu bindutoon ay rapport malaaka yi bind ko ñi bind ko timit ci lawful mahfuz yonentu yi timit jotali ko xam na lépp waaye nag dernier moment bi nag mooy peese moo tax doomu aadama jëf ju mën a bu baaxee ak bu bonee ñi ngi koy njëkk enregistré ci lawful mahfuz jàllar bi ko timit door koo enregistré ci carnet yi malaaka yi nga xam ne ñoo lay topp di bind di kiraaman kaatibiina yi soo dee rek ñu laxas ko ci sa doq gi booy dekki dekki xaaleeg moom téye ko boo ñëwee ci kanam yàlla mun na la iqra kitaabaka kafaa bi nafsika al yawma alayka xasiba jàngal sa note yi nga am nga xool ñi affiché loxo nga ne ah loxo de moom deux cent lañ doon laaj mais cinquante laa am bët de moom trois cent lañ doon laaj mais vingt laa am awra cinq lañ doon laaj mais dix laa am waaye tamit lekk lu xaraam muy biir bi dañ doon laaj mille mais man deux cent laa am yaay mujj yuuxu ne yaa waylata maa li haadal kitaab laa yugaadiru saxiratan wala kabiratan illa saa moo tax kon mi ngi mel ni suñ xale yi rek bu ñuy def bu ñuy exceller ci université yi ci lycée yi ci école yi amul kenn ku ñuy woone diw admis nga dañuy afficher notes yi rek nga xool ree ne man ka ndeke admis di ku la ko wax notes yi la ko wax wala nga xool rek jooy ñu commencé di la yëkkatee ka tëral ngay jooy rek te kenn dóorul la not yi moo la dóor yàlla bu yowmal xiyaamee tamit noonu la mbir yi mel ku liir sa not yi su baaxee yaay reyal sa bopp ku liir sa not yi bu bonee yaay jooyal sa bopp te fekk kenn dóorul la loolu lay wax si nii moom lay wax si nii mooy moom lay wax nii was wasnu ba mu ne wal nu màndaxe ba mooy peese ga yow ma bi bisab keroog alxaqu peese gu maandu lay doon waaye fa man saqulat képp koo xam ne diis na mawaasinuhu lañ ko màndaxal fa ulaayika yooye gaay hum ñoom al muflihuna ñooma di way texe waaye wa man xafat képp koo xam ne xoyof na mawaasinuhu lañ ko màndaxal fa ulaayika yooye gaay lazina mooy ña nga xam ne xasiroo pertal nañ an anfusahum seen bopp bi maa kaanoo sababu lañ nekk kon bu ëllëgee kenn ku ci nekk da nga wéet ak yàlla mu peese la peese sa jëf gis nga ko fii da koo jamoo mawasine la wax moo tax baskil bi ak peese yi duñ benn danga taxaw ñi peese sa làmmiñ wi loo ca war a wax lépp loo ci loo ca waxagum keroog bëgg a mësooree ba ni nga deexee la ca yiiw ak la ca yiiwadi bu ñu paree ñi peese sa awra bi liñ topp yàlla ak liñ ci mooy yàlla bi nga mësoo reeg ba bi ngay deexee loxo ya noona li ci bind li nga ci signé muy luy lor nit ak lu cay jariñ nit sa tànk ya li ci dox sa bët ya loo ca xool cër bu ne ak màndaxam boppam moo tax mu nekk mawasin suñ paree yow jëmm ji ko jëf tamit ñi peese la sa poids yonentu bi ne danga gis koo xam ne lekkkat la woon ku mënoon a lekk la mën a naan nekkam ponkal bu yow yowmal xiyaamee buñ ko peesee ci baskilab yàlla bi du toll ni maanaam màndaxam yoo mbaggam yoo koy ëpp poids ci kanam yàlla ba kon danañ peese jëmm yi peese jëf yi xam nga jëf nag maanaa la julli tey ku ko mën a gis ba koy peese mais jëf yépp yàlla da koy sop ay jëmm buy jëf ju baax da soppi jëmm ju rafet bu ko defee nag mooy moo waral ñuy peese loola waaye xam nga jëf-jëf jëf maanaa la wax nga daanu na ku ko mën a peese mais wax ja ak jëf ja ak pas-pas ba yàlla da koy jëmmal buy lu baax muy jëmm ju rafet buy lu bon muy jëmm ju ñaaw jëmm yooyu nag la yàllay peese mooy am poids yonent yàlla daawuda ku bañ kumpa la mos naa wax yàlla ne ko damaa bëggoon nga wan ma baskil yi ngay peese jëf yi yàlla wan ko ko waaye baskil bi benn baskil bi rekk moo ëpp juróom-ñaari suuf yi buñ ko tàllalee ak asamaan yi mom dafa xol baskilab yalla ba rek daanu xam ne yow yalla baskil bi, ku ko mën a feesal ku ko ko pourtant suma geureume sama jam bi lu toll ni tandarma boko ki tege rek mu daanu yalla nañu ko yalla defal waye baskil bi ku meuna xam tuwaab lu ko meuna fessal waye baskil ba lamuy reey reey li yonentou bi ne kalimatani khafifatani ala lisani thaqilatani fil mizani kalimataani yooya muy subhanallah wa bihamdihi boo ko ca tegee rek dafay daanu duñ ca duñ jël julli di ko ca di ko ca teg duñ jël asaka di ko ca teg duñ jël maanaam war weeru koor di ko ca teg boo ko cay teg rek dafa ca am poids yoo xam ne boo ko tegee rek day daanu waaye am na ci yoo ne boo ko tegee foog nga am yoo ko dool yi mu door a mën a daanu waaye kalimataani kalimataani xafifataani jooju wax saqilataani jooja nag moom mooy wane ne kon buñ ko cay teg rek mu daanu loolu loolu ci la bu boko ko bam ko ko wone mu xam mu ne ko pourtant buma ma sama jam bi lu toll ni poiwu tandarma boko ci tek mu daanu yonentou bi ne daga gis ko xamne dañ koo sallallahu alaihi wasallam, ak lu baaxam ak lu bonam hem kep mu yuuxu tit di joye fuma jëm mu am lu ben ben mbuus bu wacc rek teggu ci baskil ba baskil ba daanu mu ne ko yow yalla li fuma ko jele mu ne ko ba nga dehe ñi lay sul ki am na ku tiimoon wala ñu tiimoon sa xabru ba tibb ci suuf sotti ne minha xalaqnaakum tibbaat ne wa minha minha xalaqnaakum wa fiha nuidukum minha nuxrijukum taaratan booba laa la laa la dool yi moo tax mu daanu jarta xeeb dara am koo xam ne dañ koo peeseel mu tolloo mu yuuxu fu ma jëm lu mel ni aw niir ñëw dal ci baskil ba mu ne ko maa doon xam-xam bi nga doon jàngal nit ñi di leen ca gindi maa la sooye fii yàlla nañu ko yàlla boole defal mu ne tamit dana peeseel doom lu baaxam ak lu bon tolloo ñi war a njoñ yóbbu safara peeseel baayam bi ko jur lu baax ak lu bon tolloo ñi war a njoñ jëm safara te doom jooge dafa doon dëngee waajur wa ci fii suuf di ko saaga di ko wax lu bon doom ja jooy ne yow yàlla li ma baax léegi néew jël ko yokkal ko sama baay mu dem aljana te man ma dem safara sama borom yéemu ya, ya ne ah yow ya ko doon dëggee ci àdduna tey fii àllaaxira nga koy baxé tay nga xamné ma leen gëna bax yeen ñaan ñep dem leen aljana ndax am na ci doom yo xamné da nañ dëggee seen waajur yi waaye leen dëggee tamit boo xeggee àllaaxira da nga leen baxé bu yalla nango baxé ga da fay far baxé leen yeen ñaar ñep ngeen far aljana wajur du ku ko ci foye da nga torox bayi leen xel seen wajuri bu baxa baxa bax kon mawasin yaa pesa ya motax mu ne wal wasnu wala wës nu màndaxama yow ma itin bisab korag alxaqu bu maandu lay doon fa man saqulet képp koo xam ne diis na ma mawaasinuhu lañ ko màndaxaal fa wulaay ko yooye gaay hum ñoom al muflihuna ñoom a di way texe ña bu la neexee sax nga xasru ko ne fa wulaay ko yooye gaay hum ñoom dong al muflihuna ñoom a di way texe ña wa képp koo xam ne xoyof na mawaasinuhu lañ ko màndaxaal fa wulaay ko yooye gaay la fi na ñoo ñi nga xam ne xasir wa pertal nañ anfusahum seen bopp bi maa kaanoo bu lañ nekkoon yax li mën a di weddi bi ayat naa suñ kawteef yi de ma ngay delluwaat nag ci àdduna ni mu nekkee palaasu liggéeyukaay ak moyen yu ñu fi yàlla may ndax wax na xalaa xiraa bañ tiit mi ñuy delloowaat ci àdduna ne defal naa leen ci àdduna palaas yoo xam ne man ngeen cee fàggoo lu ngeen di dundee doomu aadama yu mën a doon palaas bu ma leen mën a wàccee ñi nekk fa rek wàcce waal naa leen fan dëxalal ñin fa loo xam ne mën nañ faa dundee ci dul ñuy jëgaani koo gis muy jëgaani dañoo yaafus rek yaafus rek waaye waat naa ci yàlla bu yaafus amutoon duñ dem fenn amul kenn ku ne yaa ngi dugg gaal di jëm fenn wala ngay xuus lépp luy jariñ rek réew mu ne ak dëkk bu ne ak gox bu ne la leen yi jariñ yàlla defal na leen ko ci suusa buñ solee mbubam politique ak mbubam saagaante xasante nag ah duñ dañ mukk di jëggaani luñ dundee boole ko di jëggaani luñ fajoo ndax yàlla ne wa qaddara fiha aqwaataha fi arbaati ayamin sawaan li saailin kon nag góor góorgóorlu rek waaye suuf si ak géej gi ak maanaam gàncax yi lépp lu ñu war a mën a dundal ba duñu wuti dara mi ngi fi li fi des nag mooy takkaayu rek jéem koo exploité waye buñu ñu timit mom duñu fekk ci mukk ndax yaronte yalla sayyidatuna Maryama ba yalla maye mayee ne ko sukkandikul ci sa ëkk googu mu nekk ëkk gu waw pour nga mëna am doom bam ci sukkandiko garab ga mujji toy xep tontor meññi ba amé doomi tandarma garab ak tandarma la woon dafa ne ko nag la ma man na sax lu ko ëpp mais nak yaay def effort gësam ko pour mëna wohusi wa husi ilayki bi gis naxlati tasaqat alayka rutaban janiyan si Ahmad Tijaan si almaktum hakim la mu ne yàlla ku ko ñaan loo xam ne da nga koo man ba pare tamit du la ko may waaw yàlla boo koy ñaan ñaan ko loo mënut mu defal la ko waaye loo man ba pare loo ci ñaan yàlla du la ci may tus musuma dégg ku ko gën a dégg réew mi man xaw ma ko ku ko gën a xam réew mi ku ko gën a xam nit ñi man xaw ma ko moo tax kon nag loolu jar naa bàyyi xel kon nag yàlla dëxal nañ nañ góorgóorlu rek buñ góorloo rek yàlla dimbali ñu moom lay wax si nii moo tax mu ne wala xadd makkan naakum wala xadd makkan naakum jekkulee woon nañ leen ñun yàlla ñoo leen jekkuloo dëgër leen leen fil ard ci suuf wa jaal naa def nañ làkkum ñeexal leen fiyaa ci suuf maisha ay jottalikuwaayu dunduwaay ngeen mën koo jariñoo ci to ci bay seeni tool jëmbat seeni gàncax yar seeni juri kër lépp ngeen mën koo jariñoo te jox naa leen ko waaye xallan aji néew la maa taskuruna seen ak sant li ma leen defal a bëri waaye li ngeen ma sant néew li ma leen may ci xéewal dafa bëri ba bu ngeen ko doon lim du sotti wa in tauddu nicmatallahi la tuxsuha waaye nag wa qalilu min ibadiya shakur li ma leen defal ci xéewal dafa bëri te li ngeen ma sant néew yàlla xéewal mi dafa bëri kenn mënu koo lim moo tax kon fu nekk yàlla defal nañu ko ba pare aménacé na ko ba pare suusaa ngi fi juri kër yaa ngi fi ndox maa ngi fi su boobaa nag kon lañuy mooy nañ dellu di bay tey maanaam dellu ci suuf di bay di yar ay jur buñ soxlaa rendi ci moom daal fépp foo xam ne réew réew kenn mënu koo développé ci lu duhut mbay mënoo koo développé ci lu duhut élevage yar jur ak mbay réew mu ca nekk dootoo soxlaati dara te wallaay corona bi waroon naa tax ñu jàngee ci lu bari ba kenn ku ci nekk fi nga ne nga man koo toppatoo ba doo soxlaati dara waaye ku jëggaani lu la loo dundee danga nga jëggaani lu la faj kenn mënu ci dara ku jëggaani loo dundee da nga jëggaani lu la faj moo tax ñun nit ñi sonn lool moom ba fi suñ maam yi ne bari wuñu woon nii pharmacie bi fi njëkk ñëw ñu ne toog na fi ren ba déwén mënta jaay dara ndax booba mbuum la ñuy lekk ak cere ñu ne mën a ñii duñu feebar ñii kay moom foog ñu sàkkal leen pexe rek andil ñu ceeb beeg andil ñu dëwlin beeg andil ñu yeneen yu kenn xamut gaay yi moom jàpp nañ ni mu gën a niine rek waaw bu ko defee nag ñëpp am problème feebar yi ñëw ak yu kenn xamut kon nag yooyu yëpp jar naa daw nañ ci bàyyi xel nañ góorgóorlu delluwaat ci tool yi delluwaat ci géej gi delluwaat ci euh, juri kër yi boole mbay di nappi di yari juri kër ku ko def da nga wér ku ko def da nga fi yàgg ku ko def da nga am jàmm waaw waaye yeneen yi de yëpp système la mën naa xëy rek taxaw système rek la day xëy rek taxaw bu taxawee rek dawaa tabaarakallaahu coono ñëw léegi nag mi ngi ñuy fàttali fi mu jaar ak suñu maam aadama fi mu ko indee teraanga ji mu defal doomu aadama lay wax si jëree ko ci suñu maam te wax dëgg laa yàlla teraangaay maam sët bu baax war na cee bég mu ne nag maa teraloon seen maam yi yéen sët yi tey nekk fi xanaa war ngeen a bég nag ci teraanga ji ma defaloon seen maam aadama maa ko bind ci sama kartan wal rooxu ci moom sol ko xam-xam bu malaaka yi amut yebal malaaka yi liñ koy mag mag ci saahir mën na leen sujjóotal leen ko màggal ko lii li maa ko defal seen maam kon nag bu ngeen xamee jom war maa sant ci def samay ndigal bàyyi samay tere fi mu jaar ak aadama lay wax si nii moo tax mu ne wala xadd xalaqnaakum wallaay sa dëgg-dëgg bindaloon naa leen seen maam aadama fu ma sawar naa naakum topp ñu melalal leen ko ba mu nekk jëmm ñi wal ca roox su ma xul naa topp ngi door a wax lil malaakat ñeel malaaka yi de usjudoo sujootal leen li aadama ñeel aadama fa sajadoo ñoom ñépp ngi sujootal ko illaa iblis lu dul iblis istisnaawu munqati' la lam yakun nekkul moom mina saajidina bokk ci way sujjóot ña xaala sama borom ne ko maa manaaka lu la tere allah tasjuda nga ñàkk sujootal is amartuka ba ma la digalee kii ma digal la ne sujootal ko lu tax sujootaloo ko xaala mu ne annaa man xayrun maa gën min hu ci moom lu tax ma gën ko xalaxta nii yaa ngi ma bindee min naarin ci safara te wan naaru min nuur wa xalaxtahoo yaa ngi ko bindee min tiinin ci ban te wa tiinu min a xulma sama borom xaala ne ko fëx bit wàccal min ha ci aljana fa maa yakunu yellut làkka ñaal la anta takabbara ngay jéem a rëy rëylu mënoo rëy sax mais da ngay jéem a rëy rëylu fii ci aljana faxru génnal innaka naka yow mina saaxirina yaa ngi bokk ci ñu xeebu ña de ñu torox ña kon gis nga yàlla fi mu jaar ak aadama ci bind ko tabaarakallaahu ci xeeti ban yeeg suuf yi yàgg nañ caa jaar ba wal rooxu ci moom roof ko xaqiqatul muhammadiya aadama xam tur ya nekk boroom xam-xam ci wa allama aadama al asmaa kullaha mu laaj malaaka ya tur ya xamuñ ca dara mu nekkoon kon yéen ñi xamul dara ñëw leen ngeen màggal borom xam-xam bii di aadama ñoom ñëpp root su ko ba mooy iblis iblis nag jinne la duhut malaaka dafa yàggoon a ànd ak malaaka yi rek ndigal la fekk ko fa mu bokkaale ca mu ngi mel ni xaj rek walla golo bu yàggee ànd ak nit ngay sang di ko jox mburu di ko jox yàpp di ko tëral ci kaw lal yi te am na ki ñoo xam ne tey liñ mën ci seen xaj yi sax mënuñ ko seen mbokk yi waaye rek boko defé ci golo timit bis bu na nete feeñee rek golo manam jikoy golo gi delusi golo mom fu nete feeñee mo wara chay chay waye xaj timit bis bu bis bu yap feeñee mu wone ak chay chay lol nak mo dal iblis yag na and ak malaika yi di xéeg ka wacc waye kero ba ne toroxlul adama war ko sujotal amé rek jikoy koy je manam delsi wat ci mom mom nak ñetti mo yalla la moy yalla gu gi yalla digal nako mu bañ mom la wax ni mama manaka allah tasgud amartuka bur bu day ni yalla ni la defal nga ne defuma loolu mooy yàlla mënu koo paase safaanab aadama la mudef mom dañ ko téré mu def téré ga iblis dañ ko digal mu lank ndigal la bo jangé usul dañuy wax ne xëtt ndigal mo gëna a téméri junné yoon xëtt boo ko bëggee dégg da am ñaari doom kenn ki nga ne ko jëlal jumtukaay dem ca tool ya léegi demal ca tool ya maa ngi ñëw léegi fekk la fa mu dem sàngu di tëddi nelaw kii nga ne ko nag tey neexut ba neexut mais wàcce naa la bul dem tool moom mu jël jumtukaay ya dem tool ñoom ñaar boo leen dajalee ki demoon tool te nga nekkoon bul dem tool layam mooy gën a jub ndax man naa waxoon naa la yow bul dem tool tax ngay dem tool mu ne ci sa papa boo gisee ma dem tool ñax mi dafa bëri te damaa bañ ñi booyal moo tax ma dem tool kooku xam na lu mu lay mais yow eh, moo moo tax ma dem kii na nga ne ko bul dem tool kii moom nga digal ko ne ko demal tool moom mu ne dew ma kooka kooka gën a garaawle xëtt ndigal moo gën a garaaw xëtt tere aadama dafa xëtt ndax dañ ne ko wala taqraba hadihi shajarata bu leen jege garab gi moom mu dem lekk ko kii nag dañ ne ko moom su jootalal aadama moom mu lànk kon moo gën a garaaw demal tol nga ne deewuma fenn mo gën oyof bul dem tol nga dem tol kon lol mo dal iblis moo tax iblis adam mi gën oyof la rek fatalaqa adam min rabbihi kalimatin fataba alayhi innahu huwa at-tawwabur rahim moom tuubee rek yàlla nangul ko ki nak mom da cee boole li dafa togn ñaar yoon yàlla moy togn ba pare sa kilifa nga togn muy wax ak yow ngay lay parce que lay togn rek togn la boo tooñee sa kilifa mu ñëw di la yedd yow ji soxna si sa nijaay ñëw lu tax ngay def nangam bul nekk di lay ne ko baal ma àq nijaay rek boo ko defee rek am jàmm mais yow lu tax ngay def laa ne ko maanaam xalaxta nii min naar wa xalaxta wa min tiin ko koy tooñ mënu koo paase kon gis nga li ñuy tuddee raso ak waaso iblis a ko njëkk a samp ci suñ pénc mi ah man may géer piir aadama mi di géwél loolu la ko wax di man mii di géer kee di géwél naka lay man giir bi di si kóotale géwél bi ndax mu ngi ni xalaxta nii min naar wa xalaxtahu min tiin te xamul ne ñaar ñëpp a teet dañoo ne boo ko seqoo ko waaye daa nga fi dégg ci ay weer yi passé coow lu yëkkati ci diggante géer yee géwél yi waaye dëgg-dëgg fekk na ñoom ñaar ñëpp kenn ku ci nekk yàlla joxe na ci yow ayab alquran géer yi ñoo fi baaxi géwél yi géwél yi ñoo fi baaxi giir yi pencam kese moo am géer yi kese ceeb boo amul xorom la waaw waaye tamit pencam kese mu am géwéli kese xorom boo amul ceeb la kon boo bëggee mu neex boole leen parce que géer yi ñooy defkatu lu baax li géwél yi ñooy waxkatu lu baax yi kuy wax lu baax ak kuy def lu baax ku leen mën a teqale ñooyam képp moo tax kon géwél yi ñoo moom waqulu linnaasi xusnan waxal leen nit ñi lu rafet te pourtant ñoo xam nañ lu rafet ñu nëbb seen lu rafet yi di leen waxal lu rafet kooku boo xamee jot nag ak ngor nga jox ko dara ñii tamit géer yi ñoo moom i'malu fa sa yara llaahu amalakum wa rasuluhu kenn mënu leen a teqale lii rek la moo tax de ku am ab dëkk boo yeboo wuti géwél yi de mooy tax mu siiw de mooy tax foo bëgg sa dëkk ba yegg mu yegg fa kon nag bu ci kenn xeeb sa bopp ñaar yëpp baax kon Iblis dafa juum moo njëkk a indi waasoo ak raasoo ci pénc mi moo tax loolu ku ca dellu rek da nga yàqule moo tax xalaqta nii min naar wa xalaqtahu min tiin sama borom ne ko xaala faxruj minha kon moom mooy na yàlla ci ñàkk def ndigalal yàlla waaye tamit am na fu mu nekkoo ko ne ko maa manaaka allaa takuna maa saajidin lu la teree bokk ak way sujjóot kon foofu dafa def xarqul jamaa génn mbooloo te yàlla bëggul ko génn mbooloo maa manaaka wax na ko tamit ne ko lan moo la teree sujjóotal koo xam ne maa ko bind bi yadda ya maa ko bind ki sama kartan kon ñàkk naa màggal ku yàlla màggal kon moom ku yàlla màggal mu ne man duma ko màggal ku yàlla digal ne sujjóotal ko nga ne ko duma ko def yàlla boole laag mbooloo ma nga ne man génn naa mbooloo mi sama yëfi bopp laay def te man shadda susa fi naar ku beddee ku mbooloo ñi ber la ëllëg ci safara moo tax kon ñetti mooy yàlla la def bam jappé jàppee ne genn mooy yàlla la def yépp fekk na nek na ñett yo xamné benn bu ci nek mo gëna graw moromam kon nak iblis ngok ak suñu mam adama suñu borom mang cey tofal nak. lu ba qala fahbit mu ne ko waccal nak fi do fi reey lu ndax ko xam yaangi soxé ko ci ban yaangi soxé ko ci safara noy mëna reey reey lo fekk mom dafa qiyas moy ki ñëk masal mas masalan kias. bi ñuy jàng ci usul mu nekk ñeenteeli sukkandiku waaye ci sharia sharia biñ ciy njëkk a sukkandiku mooy kitaab ak sunna bu amul bu ñu amul kitaab ñu seeti sunna bu ñu amul sunna ñu seeti ijma li borom xam-xam yi dëppoo bu ñu amul ijma ñu seeti qiyaas mais bu nassu xasee am boo qiyaasee dootul wérati te nassu am na muy usbidoo li aadama kon boo defee qiyaas dootul wérati moom nag dafa qiyaasoon ne maanaam mm, yàlla rek lañ war a sujjóotal ñaareel bi mu xiyaas ne safara sii mu soqee ko moo gën ban bi aadama soqee ko lu tax mooy dafa gis ne safara dafa yëkkatiku rek di jëm kaw gisoo safara boo ko taalee ni mu yëkkati di jëm kaw ak tamit safara boo seddee nim la gaawee ci man laa ci man laa euh, dàqal la sedd bi soo bëggee loolu lekk ni safara gaawee ci man la ko toggal maanaam njëriñ yooyu nekk ci safara la xiyaas ba mu foo ne safaraa gën suuf waaye ndeke suuf a gën safara ndax suuf yàlla da koo bind ci dal du yëngatu xoolal li ñu koy teg ci ak mooy yàlla xoolal li ñu koy teg ci poids yu diis mu ne dégg rek sa suuf yàlla da koo bind ci mën a muñ ak mën a muñ suuf yàlla da koo bind ci lewet xoolal suuf ni mu lewetee yalla da ko bind ci joxe njariñ ak garde njariñ alal jo jël bëgg mu yok denk ko suuf laaj ko promoteur yi kana bo jëlee 2 millions def ko ci pak bo toggee juróomi at man nga ko 40 millions kon suuf loko jox rek mu dencal lako jalal bi ko sakanal lako yokal lako waye ko waaye suuf ci la sababu dund ak yeb yeb ci suuf lañuy dund nit ñi dund ci yi kon bu suuf amutoon ñepp de te suuf mom doylu na walis safara mais safara mom munu doylu walis suuf ndax safara munu ko talé fudul suuf kon suuf bu ko nexé mu man soxlawuma safara mais safara man ta wax ne man soxlawuma suuf kon suuf du moromam safara motax mu jigi yegna na yëg na ne yëg na ne na suufa ngi ni safara ngi ni ak gaaw ci man ak gatchal mak toog rek jege ko rek mu xéñji la ba lakala nga tepp ak gaaw ci man a sutural mak, nga téye sa yéré yi mu lak sa yéré yi ba lu feeñ warutoon a feeñ ak gaaw ci yàqloo ko dénk man ngaa liggéey ay milliards bàyyi ko ci say cantine tëj ko fa ak bagage wane gannaaw dem tëju ñu ne marché ba lakk na yaa ngi koy dégg tey su suñ mbokk mag marché bi mujj a lakk fii làmbaay pàkku làmbaay la fa yàqu ci ay milliards kenn xamul ni mu toll loolu safara rek moo ko sañ waaye fekkoon ne loolu tey suuf nga ko joxoon du ko du ko yàq safara loo ko jox mu yàq ko te suuf loo ko jox maanaam mu garde ko kon maqaamaab suuf mooy jamxu mooy boole maqaamaa maanaam safara mooy farqu mooy teqale rek moom moom teqale rek la man kii nag moom day boole rek moo tax mu gi mu yëg ne man daanu naa damaa xiyaasoon foo ne man fi ma soqee ko moo gën a foor kii fi mu soqee ko mais ndekk kii moo ma gën téeméeri junne yoon moo tax kon jël nit di jàpp ne yaa ko gën foofu la ëural am euh, di xool ci waaso mbaa ngay xool ci raaso mbaa ngay xool ci cosaan yonentu bi dundam gi yëpp presque ci la ko jeexal ci xeex dafa daan toog ba si yàgg mu ne kullukum min aadam wa aadamu min turab yéen ñëpp ci ci suuf rek ci aadama ngeen bàyyee ko aadama buñ ko dàqee mu bàyyee ko ci suuf Muawiya keroog ba muy saboté Bilaal ne ko yeb na sawda yow doomi nit ku ñuul gi ba mu demee boole kook yonentu bi yonentu bi ne ko Muawiya li ma sonnee ci yéen di leen jàngal di leen yar foogoon naa ne jikkoy jaayile ju bon ji génn jeex na ci yéen mu jooy jël lexam ba tëb dëbb ko ci suuf wax bilaal ne ko baal ma àq mu ne ko baal naa la mu ne ko jëlal sa tànk bii gën a suufe teg ko ci sama lex bii gën a kawe ba ma yëg ne man duuma dara mu dëgg tànkam mu ne ko kon nag baax na baaxal naa la toppatuma la dara xoolal te yonent bi li ko tiimoon ci ay nit ñu ñuul parce que mën ngaa wax ne sax nit ñu ñuul ñañ xeeboon moom la gën a jegeel boppam nit ku ñuul la ko gënoon a jege ndax nit ku ñuul moo ko daan noddal nit ku ñuul moo ko daan liqaamal nit ku ñuul moo doon bëkk néegam nit ku ñuul rek la téeréem bi ñi wàccee ci moom benn nit ku ñuul la tudd muy alquran ci sahabaam yépp muy falama qada zaydun minha wataran nit ku ñuul moo fase soxnaam yonentu bi ñëw takk ko gannaaw bi yaddaam jeexee sama borom may ko ko kon nit ku ñuul for na waaye nag xeeb suñ bopp rek ñun moom dañoo xeeb suñ bopp nekk nit ku ñuul dégg wolof ñu yóbbu la ci télé bi nga ne man ak wolof leerul loo leer le wala baal leen ma de man sama tukkulóor yi leerul boobu lañ foofu lañ waroon a xemale émission bi bàyyi leen xeeb seen bopp munu leen tubaab tubaab lu ba nekk tubaab waaye rek ku jàng ci naar yi rek ñëw bëgg a nekk ab naar ku bàyyee ko ci timit laaw nekk fi di kay faxaalu kay làkk arab yoo xam ne rek di naar naar rek boo bàyyee ko jàng ca tubaab yi ñëw ñëw bëgg a nekk ab tubaab yooyu yëpp dafa ñuy tardeel nañ fonk suñ bopp nit ki bu fonkul boppam kenn du ko fonk yonentu bi sax dañ koy fonk dafa fonk boppam yàlla dafa ne dafa gëm boppam ñu door koo gëm amana rasulu bi ma unsila ilayhi min rabbihi door a wax ne wal muminuna kullun amana billahi waaye amana rasul boo xamutoon loolu dara du ci am kon nañ gëm suñ bopp nit amul lu xëpp boppam ku sa bopp réer doo am foo koy foo koy giseeti kon na nañ ci bàyyi xel kon aadama ngoog mu ne ko aadama nag léegi yàq iblis yàqu na loo teg mooy ma anta takabbara fiha faxru innaka mina saaxirin iblis ay taxaw di ñaan nag iblis ay ñaan xaala iblis ne d'accord naa waaye anzir ni kon muñal ma bu ma rayagum ilaa yawmi yub'athuna jëm ba bis ba ñuy dekkaleef mbindéef yi foofu nag dafa bëggoon nax yàlla ci wax boo ko yàlla ne ko nangul naa la foofa rek dootul deyaati ndax yow deexagoo ba ñuy dekkil nit ñi bu nit ñi xasee dekki kenn dootul deyaati foofu la bëggoon a nax yàlla yàlla ne ko d'accord dégg naa sa wax li nga ma ñaan nag duma la ko may xaala sama borom ne ko innaka naka yow maanaam minal muntarin yaa ngi bokk ci ñu muñal ña waaye waxut fan beneen aaya la koy waxee minal muntarin ilaa yawmil ilaa yawmil waqtil maalum am na laa koy firi mooy waxtu wuñ xam nga mooy bu ñu walee bufta ba ñëpp war a dee foofa laa lay door a rayee kon ku gudd fan la ba tey mi ngi dund fi la boroom xam-xam yi laajee waaw ne ndeke xéeféer yàlla da nangu ñaanam iblis yéeféer la weddi na yàlla waaye terewul ñaan na yàlla gudd fan pour mana yak yàq mais terewul yàlla nangul na ko ñaanam xoolal boobu ki jamono suñu ma suñ maam aadama ba bis ni ki tay mi ngi dundu feeg wala guñ bufta bi ñepp wara iblis du dee kon yalla nanguna na ñaanam mais yalla bu nangoo ñaano xéeféer ku ko gëmut dafa ko def istidrajan pour jay ko rek sa nastadrijuhu min haythu la ya'lamuna lako duwal waye nangul nangul sa ñaan pour pour pour pour gërem la de parce que yalla fajal la sa soxla ak wuyu la duñ benn wa ida saalaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu daawata daai ida daani kooku mooy yàlla huyu la waxal yow yonantu bi sa gaay yi la laaj naan man damaa soreem damaa jege damaa sori bañ may joxor ndax damaa jege bañ may diyaale ne leen ku jege laa sama jaam bu ma gërëm su ma hooyee rek ma huyu ko kooku mooy huyu la jàllal bi ko tamit fajal la sa soxla kooku yàlla jaam bu mu gërëm rek la koy def wax na ko ci yonentu yàlla luut wax wax na kon ci yonentu yàlla no ba ma xooyee xuyu naa ko ak ci yeneen yonentu yi waaye nag léeg-léeg nga ñaan yàlla yàlla jéppi la sànni la soxla sax mu dem faju te fekk xuyuhut la yaa ngi koy mën a déggee ci yalwaankat bi ñëw di yalwaan kàddoom naqari mu indi bur wi ci kër gi ba kenn déggut dangay mujj sax mer wax ki waaye jëla sarax bi jox ko waaye ndax mu dem ndax mu noppi fajal nga ko lim doon soxla waaye taxul nga wuyu ko waaye bu ñëwee yëkkati ay wayu neex tagg sayduna muhammad sa xol bég da ngay ñëw doo bëgg sax mu noppi da ngay yéexe sarax ba waaye yow foo bàyyee koy noo tudd foo jàngee lii nekk fa di wax ak moom ba sa xol sedd kon wuyu nga ko par door koo fegal soxla kon ab xéeféer ak ku yàlla gërëmut bu ñaanee yàlla yàlla da koy sànni soxla sa rek bàyyi ko mu dem fekk huyuwut ko moom lay wax si nii moo tax xaala ibliis ne fa bi maa axwayta nii ci sababu sànk gi ma sànk la aqu dan na wallaahi danaa jékki lahum ñaar leen siraataka sa yoon wa mustaqim wu jub kocc wa sa yoon wu jub woowa foofa laay jonkan su gaa yi ñëwee rek ma dëwiye leen su ma la aatiyanahum topp dinaa leen dikkal min bayni aydihim ci seen kanam seen kanam nag mooy àllaaxira danaa taxaw ne leen dekki xamut safara xamut aljaana amut lu ngeen man ci bànneexu def leen ko moom moom moom min bayni aydihim wa min xalfihim dinaa leen dikkee ci seen wàllu gannaaw seen wàllu gannaaw mi ngi ci na mu àdduna dinaa leen wax ne nekk leen ci àdduna adduna mooy dund gi maanaam lu ngeen man ci bànneexal seen bakkan def leen ko dajale leen seen alal yi ngeen dund ci jamaa maalan wa adadahu wa an aymaanihim dinaa leen dikkee ci seen wàllu ndeyjoor wàllu ndeyjoor nag mooy wàllu seen diine seen diine ji laay ñëw tàbbal ci ak sikk ne dara du dara du ci dëgg dara wérut ci wa an shama'ilin dana len dikke ci sen walu chamoy chamoy ga lim ci nam moy sen walu sahawaat moy banex ya lepp luy banex dana len ci xebal motax wala tagidu do fek ak la gëna bari ci ñom shakirin ñi way sant la kon gis nga iblis jihadi yi sitta la benn wàll moo am càmmooy kanam gannaaw suuf ak kaw muy fawqa ak tax te ñaar yi rek la tuddut waaye juróom juróom-benni wàll yi nga xam ne moo wër nit képp ñeent yëpp iblis tudd na ko danaa ko ñëwal nit ki ba mooy ñaar ya danaa ñëwee ko ndeyjoor danaa ko ñëwee càmmooy danaa ko ñëwee kanam danaa ko ñëwee gannaaw kon fu ne mag ñu fay lekk maanaam euh, mucc ci iblis yombul de ku yàlla dimbale rek waaye mu ne nag ca kaw ga waxul ca dara suuf ga lu ko waral suuf kaw gi foofu la yërmande yàlla di wàccee di ñëw ci jaam bi te iblis mënta dox diggante yërmande yàlla ak jaam bi moo tax waxu danaa ko ñëwee ci kawam suuf gi dafa nekk lu suuf lu toroxlu iblis rëyam mayut ko muy wàcc ci euh, euh, tànki jaam bi di toroxlu moo tax waxu ne danaa ko ñëwee ci suufam ngir moom dafa rëy ndax moom jàpp na ne comme gis moo la war a tiim bu ñëpp toogee moom dafa war a toog ci kaw bu ñëpp toogee dafa war a taxaw moo tax mu ne kon man damaa nekk ku ñuy tóojal mais man du ma tóojal kenn moo tax tuddut suuf kon looloo tax ñaari ñaari wàll yi tuddut ci benn mu ne kon nag doo fekk ki ñoom ñu bari ñu lay wéetal yàlla ne ko baax na demal sama yoon nekku ci yow moom dàq naa la rek démonté naa sa garaat yàgg ku la topp ci nit ñi ma boole leen yéen ñëpp dugal leen safara bu la neexee nag nga dem waaye nag na nga xam ne ina ibaadi yi laysa laka alayhim sultaanun sama jaam yi ma gërëm mënoo ci ñoom dara moom lay wax si nii qaala sama borom ne ko uxruj génnal minha ci aljana masuuman mbir mu ngay nekk di ku ñu jéppi madhuuran mbir mu ngay nekk di ku ñu dàq laman tabaaka gëñ naa ne képp koo xam ne topp na la minhum ca ñoom la am la an na danaa feesal jahannama safara minkum ci yéen aj ajmaina mbir muy mboole seen demal ku la topp yaa xam waaye sama liggéey yaa ngi la toppoon yëpp danaa leen dugal safara te kenn duma ko laaj yal yàlla musal ñu ci ci barkeeb yonantu bi kon teg leen seen baaraam yi foofu ci safara bu ñu fi yàlla indee ci waxtu wi suba ñu dugg ak ci wayaa aadama uskun anta wa zawjukal janna yàlla nañu ci yàlla yóbbu ci barkeeb yonantu bi barkeeb alquran lépp lu ci leer yàlla la lu ci lëndëm gàtt xam-xam ak ñàkk fasaax la yàlla nañu yàlla nangu lépp ci barkeb sayduna muhammad sallallahu alayhi wa mu ñu ngi sant tabarakallah oustaz Thiam di borom xam-xam moom tamit liggéey ci diine ji ba màgget di ku baax euh, imam Mar di borom xam-xam di di dimbale waa français fële di leen jàngal seen diine mi ngi may tàggu sax damaa war a dem ndax war dafa war a dem foofa war leen a jàngal seen diine nekkee ancien footballeur waaye nag léegi moom ancien sëriñ daara la ci ñun la bokk tabaarakallaahu Alioune fay di xarit mom timit di soppe jotaayu mel ni ngeen min ko fi tabaarakallaahu ñing koy sant ñing koy gëreum suñ mbokk yi bàyyeekoo ba marché warank imam Abdourahman mi ngi ni tok ak xam Ñang mom timit mi ngi fi ñing koy sant di gëreum gërëm tabaarakallaahu Cissé mi ngi ni jamono jule day ñëw bàyyeekoo ba njigi Alpha Thiam bàyyeekoo ba mom timit mi ngi fi Ahmadou bajaan sëñ daara Cheikh Modou bàyyi ko ba sanc Maamu Ndumbe ak euh, tabaarakallaahu maam Cheikh Mbay di doomu suñu sëriñ sëñ daara sëñ daara Cheikh Modou Mouhamadul Ghali rahmatullaahi alayhi di ilimaan di boroom xam-xam fee ci Kër Massar unité 23 parcelle ak mbooleem waa marché warank ñëpp ñu ngi fi yal na na yàlla jàppale ñëpp defal ñu tawfiix ak taysiir ñu ngi fàttaliku suñ mbokk mu baax ma sëñ Abi Ñas nag moom ñu daan bokk jotaay bi yàlla dogal mu dellu ci yërmande yàlla yàlla na ko yàlla xare aljana may ko mba ak njëggal beesal yërmande ci moom wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين ويبشر TQG di Touba Quincaillerie Générale LPD di librairie papeterie Daraji C3S compagnie Serine Sénégal Boisson Punch Hôtel Le Ndiambour Touba Chakanam, Jaouda établissement Datéjan, Owalo Khelkombach ak Adja Ombeliko, Nyolendon Maïs et may seen librairie papeterie d'Aradi, les lépp lu vous soxla mu ci biir. préscolaire ba terminale lépp lu ngeen soxla ci livre en gros librairie papeterie d'Aradi donc dong moo leen ko mën œuvre au programme yépp am nañ ko lépp luy consommable informatique fii la fekk baax easy print mooy encre bi nga xam ne dafay adapté wu ci bépp imprimante lu ngeen soxla ci ordinateur de bureau fixe wala portable souris clavier imprimante laser jet d'encre école